alhamdulilah rabbil alamin njiitu réew bu fi moset a jaar muy commencé Senghor muy commencé Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba Macky Sall kenn ku ne xam na diigaan nag kenn ku ne ñëw na fi dama yaakaar chef de taille rek kenn moo fi ñëwut muy Abdoulaye Wade waaye mel leen Abdoulaye Wade ñëw na fi lu ñu fi liggéey tarabu yëpp moom ci nguuram lañ ko liggéey muy tali bi muy courant bi muy dispensaire bi mooy modernisation école yi moom ci ci deux mille sept lañ ko deux mille six lañ ko defaat kon nga xam ne kooku am na lu mu fiy def yàlla def ci jamono lañu defoon rang-rang bi dañu waxoon ne euh, bu ñu paree rang dañ ko godroné waaye ma yaakaar ne un kilomètre un kilomètre dong côte ak di diigaan day ci àddina bi day ko présenté ko ci Afrique berkal ko ci Sénégal dama yaakaar ne boo dama yaakaar ne bu Caterpillar doo liggéey feneen sax buñ fi jaare benn takkusaan def waxum benn waxum benn jour de benn takkusaan rek ñu def goudron bi ah xëy na mu ngi ci xalaatu euh, euh, borom réew mi waaye yàlla si ko dogal ah ma yaakaar ne nag. Eh, xëy na fàtte di ci nekk wala leneen wala waaye alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi dund yaakaar bi ñu yaakaaroon ak moom bi mu ñëwee fii ñëw na fi ay yoon yoon ñëw na fi xaw ma ñetti yoon wala xaw ma ñeenti yoon macha allah ko kon kon du wax kenn du tooga président Macky nga nga laaj ko fan la diigaan pare mu ne la fan la diigaan pare déedéet loolu amul moom xam na ko macha allah am na lu mu fi jëf tam ay teraanga macha allah def na ko. waaye teraanga bi ñu bugg a bi ñu gën a rëy tout tout tey tey tey ci jamono gi ñoo un bi ñu tali ko ba ci jumaa penku jumaa penku dëkk bi tam Ila Touba def nañu rang-rang des benn kilomètre ma bi àggat ci kër gi rang-rang boobu bugg nañ macha allah boobu tam ñu defal ko Ila Touba bi ndax Ila Touba bi nii route nationale bi jege noonu Ila Touba bi jege diiga nekk ci digg bi xam kon yàlla am na lu mu préparé fii ci kër gi. xëy na même buñ ko amut am na lu yàlla joxoñ mu war na am eh, ba tey nag ñu tàllal état bi tàllal gouvernement bi ndax ma ñu jàppale ñu eh, tali bi am dëkk bi tam réy na réy goo xamante ne war nañ am forage ndax fan yi yëpp forage bi nekk fi munu nu dëkk yi nekk fii dañu bëggoon nguur gi jàppale ñu ba ñu am fi forage boo xamante ne day renforcer forage si fi nekk ndax opérateur fukki fan ak juróom daa mel ne fii coono gi ñu am ci ndox mu mosuñu ko am ci ndox ñu tàllal loxo président de la république di ko fàttali di ko fàttali dañ ko fàttali ndax bind nañu wax nañu dañ ko fàttali ndax mu jàppale ñu ba nga xamante ne ndox mën na fi ñëw ak tali bi xëy na am na yeneen doléance ndax dispensaire baa ngi fi ci dispensaire biñ ko sosee léegi deux mille 2007 2007 lañ tabax 2006 lañ tabax 2005 lañ defar dispensaire bi biñ ko defaree macha allah sage-femme yaa ngi fi waaye maternité boobu gën a ñu yokk ko ndax mboolem jigéen nekk tund fii la ñu wasin de alhamdulilahi rabbi na ba tey amuñu amuñu ambulance dëkk bu day ni bu toll ni waroon na fekk defar nañ ko ambulance loolu li ñu koy li ñu ñaan état bi ñaanuñu ko lenn lu dul Euh, euh, pour li ma li ma muy tali bi muy forage ah, lii la lii lañ ko ñaan eh, dama yaakaar na nag ah eh, xëy na yàllaa ko dogul xëy na mu ngi seen xol eh, ñu ngi koy tàllal loxo daal ah ndax am na daaw ñëw na fi natt ba pare chinois yi ñëw natt ba pare dellu ba ñu yaakaar ne dina am ñu def plan bi ba ñu indi ñu plan bi ñu ne ma lii montaabe juróom-ñaari téeméer juróom fukki juróom-ñaar fukki juróom-ñaar fukki million xawma ak juróom diggante pom yi ak tableau yëpp ajuru defoon na euh, bi mu ne ko xamal loolu seer na ci man mi wax de waaye seeru ci état seer na ci man na man mënuma ko def waaye état mën na ko def ñuy tàllal loxo ota ndax état bi jàppaleñ ci loolu daal mooy sunu tawat bu loolu passé tam ñiy jàng fi arab ak français dañu jàng arab ba pare ba am certificat ba pare war a def entraînement sixième dañu ne Daaru Salaam la entraînement sixième la lu day ne département war na am lu mu bon bon ñeenti liise ko ci wàllu arab ndax fii ci bi ñu defee ren examen yi ñiy jàng arab ñoo ëpp ñu at mi ñiy jàng français ci certificat bi kon fii jàng arab bi mu ngi marché bu baax a baax ndax boo seetee dëkk bi jàng arab bi moo leen gën a jàng français bi ndax ni ñu góor ñu ci arab bi boo seetee ci français bi dafa des ndax ñu suñu armée français yi bari waaye ñu may armée arabe bi dañu bëri te ñu fi jàngale alhamdulilah rabbil alamin jàngale jàngalekat yu baax ñoo fi nekk ñu mën jàngale ñoo fi nekk ñun am na chance boobu ñu buggoon école bi tam ñu miire ko ndax école boo xam ne dafa nekk ci diggante ay teel yi nekk ay diggante ay teen yu yàqu ay xale di fa dem wax dëgg yàlla état war na ko def ba nga xam ne dañ ko clôturer dañ ko miire loolu daal mooy sunu tabax yi nga xam ne war bu gën a tawat gannaaw ba loolu passé nag maa ngi sant sénégalais yëpp ndax diigaan moo dëkk boo xamante ne amul pël amul séeréer amul wala côté bu ne am nañ ci taali bi ci olof yi ñu nga ci olof yi ñu nga ci séeréer yi ñu nga ci pël ñu nga ci tukkulóor yi boo nee pël sa nekk nga tukkulóor ñoo ñëpp ñu ngi fi orienté eh, borom dëkk bi si Mamadou Ali dafa amoon ñeenti soxna am pël am olof am naar am tukkulóor te ñii ñëpp seen njaboot tey ñu ngi fii am na ñoo xam ne seen seen maam Diouf sant sant Sow ñii seen maam sant Sow euh, sant Sall ñii seen maam sant Sow ñoo ñëpp ñu ngi si diigaan fii diigaan dëkk bi fi mu ne nekk na buntu kër euh, téeméeri buntu kër ak ñaar fukk ak benn borom kër boobu dëkk nekkatu nekk bu dëkk bu tuuti te li ñu utiliser ci ndox moo ëpp li ñi nga xamante ne yoruñu utiliser wu ko ñu sàkku ci gouvernement bi léegi ñu beral na may dimbali fi forage boo xamante ne day jàppale forage yi fi nekk nga xamante ne ndox dootu fi manqué ndox mu ngi ma fi manqué manqué goo xamante ne kenn mësu ko gis ci àddina waaw. ñu ngi dem bitim réew même man daaw dem naa Italie hôtel bi ma nekkoon am na ñoo xamee ni seen ndox mi la ñu mbokk ba gouvernement Italie jël leen def leen logement ci hôtel yi. man dem naa loxo Croix-Rouge dugg na ci mais loolu lépp boo seetee mu am rek. xëy na jot bi moo bari jot nag bu baree mooy yàlla bari jot kenn war xale warta am jot xale dafa war a bu jógee ci ecole ba rek ah dem ci liggéey bi waaye comme que xale dañu am jot dañu xalaat lu ne ci àddina bu fekkoonte ne yoroon nañu liggéey nga liggéey boo sonn doo dem grand place ku bari tànk grand place amoo liggéey boo gisee grand place ñu fa bari yëpp yëpp amuñu liggéey wax. ak am bàkkaare moo ci nekk waaye ñi xam ne dañu am liggéey liggéey be sonn duñu dem grand place ñii liggéey ba sonn duñ xalaat dem ci géej gi kon nag war nañ ubbi waat affaire bi coow li tam beneen coow tam am na ci réew mi wàllu suuf suuf si nag ñi koy def commencement ci chef de village ñoo koy def ndax lu bari bu amee ci dëkk lu bari bu amee ci dëkk borom dëkk bi yëng na ko ndax lu dañu ne suuf kenn mënu ko toppatoo ci biir dëkk chef village yëgu chef village bu fekkoonte ne am na ñoo xamante ne jub nañu am na parce que man am na lu ma xam ci wàllu suuf ndax na ko nappee da nga ko ndax bu fekkente ne borom alal ñëw na fi chef village ko di ko campagnal ci dëkk bi ñuy wax ci nanka ci suuf bi ñu laal suuf boo xamee ne njoboot ko moom benn ponkol taxaw ji muy taaw ji mu ne mu dem jaay suuf si bu boobaa coow bi bu amee eh, service bi xamoon na ko bu fekkoon ne def nañu dégg rek su too suufu euh, coow suuf dootu am Sénégal ndax boo seetee fii ci bawul lépp yàqu na lépp jaay nañu maa ngi xalaat ëllëg suñu doom yi bu ñëw fan la ñuy dëkk sax ndax am na loo xam ne boo ko jaayee di ko jotaat beneen suuf suuf moom boo ko jaay dootu ko jotaat ba yowmal xiyaamati loolu moom perte nga ko ah, man naan gouvernement bi ñu seet délibération yu ñu def toujours ci ci conseil yi di ko def état bi war na ci tabal loxo ba nga xamante ne yenn nju njaay doo ci mën a nekk nju njaay fu ñu mënta nekk lépp liggéey bu ñuy liggéey si àddina gendarmerie dugg ci dina leer loolu moom xam naa ko police ak gendarmerie lu ñu dugg dina leer waaye bu fekkee ne bàyyi nañu autorités yi maire yi di def lu leen neex ànd ak ànd ak su préfet yi nga xamante ne lu maire wax ak conseil euh, d'accord ci loolu bu ñu ko def coow du fi jóge chef du village lu bari chef du koy def ndax suuf boo fay jënd balaa maître chef du village bi yëg na ko ndax kenn du indi xaalisam dugg ci réew ma di déeyante koo xamee ne nekkoo chef du village day ànd chef mu campagne chef booy se baraka bi loolu moo ko indi wan ma bëgg na président la bi duggal ci loxo appuyer ko ba nga xamante ne saa bu ñu jaay suuf bu ñu ko jaay fekk benn coow du am saa bu ñu ko déel ba sax benn coow du ko am jàmm ne ñooy guerre nag buy am si ñaar ñetti mbir lay guerre di am da ngay laal ethnie xeet boo xasee xeet nga guerre dina am boo laalee suufu jàmbur guerre dina am boo diingaatee ngëm-ngëm doomu aadama li mu gëm nga di koy saboote ngeen joti kon nag ngëm-ngëm ngëm-ngëm dañ ko war a bay suufu jàmbur dañ ko war a bay ethnie war a jukko tudd eh, eh, affaire politique bi tam maa ngi leen dénku nañu bay sëriñ ñu tudd ci politique eh, responsable politique bu ne sëriñ man sëriñ diw mooy sama sëriñ ñu la ëpp junni ñu ngi bootu sëriñ bi waxuñu ko ñu la ëpp njëriñ ci sëriñ bi ñu nga fa waxuñu ko kon da nga bugg daganal baatu askan gi rek jaare foo xamante ne da nga fa bugg def santaas ndax ku tugg sëriñ bi nga ne kii sama sëriñ sëriñ duñ ko jaay seeraaj dañ ko def ci gémmi dañ ko def ci xol waaye bu ngeen campagne bi jotee kenn ku ne man diw laa yaakaar am na koo xam ne mu ne diw laa yaakaar bu booba réew mi day tas ah, bu boobaa réew mi ma Sénégal kenn ku ne am na péete Sénégal niñ ko bindee boo sa jàmm ji nekk ni kenn ko da am peer peer boo xam ne dafa rafet may ñaan nag sénégalais ñu bokk ndey bokk baay jàppante ñu xam ne ñëpp ñoo bokk ndax ñun ñoo ñoo bokk benn sëriñ bi ñoo bokk benn ngëm-ngëm gi mu yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk ci alquraan bokk réew mi bu réew mi baaxee ñun la baaxal bu bonee ñu la bonal kon nag du ñu dem Amérique du ñu dem France fii la ñu am kon nañ nañ rafetal wax ji wax ji di tegginu politique yi tam ñu bàyyi wàññi seen làmmiñ yu bari yi làmmiñ boo xam ne mbel mbel mbel amul benn résultat amul benn nañ ko bay muy parti pouvoir muy parti position yëpp a ci yem nag ndax fi mu ne bu campagne jotee euh, ku ñëw si yow dina la jox numéro bu campagne bi passé bu amee ak bu amul dootoo ko jot ba yowmal xiyaamati bu gàñee dootoo ko gis bu bu ñàkkee dootoo ko gis kon nag bu leen ci xuloo bu leen ci xeex xeex baaxul yéen a bokk ndey bokk a bàyyi boo seetee ñu def politique kenn ku ne doomam nga jàng Amérique ñii ñu ngay jàng Canada xam nga ne doomu politique du ñu xeex ci mbedd yi de ñun itam du ñu nangu suñu doom di xeex ci mbedd yi ndax suñu doom yi ñooy suñu teraanga ëllëg nañ leen defar yar leen jàngal leen àddina ba nga xamante ne du ñu tooñ loolu mooy li ma bëggoon a wax. Hey!